moo woo Serigne Mouhamadul Bachir moom Cheikh Mouhamadul Fadal moom ci boppam wax ak moom sëriñ Bachiru woo sëñ Mamor ak man ak ñi àndal wax ma ca la ko sëriñ bi wax loolu laa leen bëgg a li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 ndax ci ay at ci ginnaaw daana jóg mu ci boppam ñëw ànd ko ak yéen waaye xatuk jamono nag ak yan bi nga xam ne moom la ko Serigne Touba Cheikhul Khadim yan loola rekk la rekk wu ko nag waaye nee na loola daal mooy gàllankoor bi te gàllankooru jàmm rekk la li wolof di wax nag neena moo ko ci dal wolof nee na bu ak daay tàkkee nga gis njanaaw yépp jóg ba mu des bàqaar am na lu ko téye nee na yónnee na waaye xelam mi ngi fi la ko dale ci waajtaay wa ba fii nu toog dara ump ko ci li daloon ab dànn nag mooy dal cheikh Mouhamadul Muntaqa saa bu yónnee ci lu baax rawatina lii ki jiitu wax na ko léegi dànn mooy ab jamkat da koo defoon liggéey ba yàgg mënatu ko waaye nag xel ma ak xol ba dara yéesu ca ba mu koy man mu tëdd guddi dégg kor kor ci ginnaaw këram mu ne nañ nimmi ko ba xam lu mu bañu ko nimmi ko ndekete naaxub naat la bu mat sëkk mu laaj yam daan jëfandikoo kenn ci njaboot gi ne ko waxal li nga ci bëgg rek ñu def ko ci mu ne xam naa ne li ma ci bëgg man ngeen ko waaye nag daan bu toll ni moom euh, diir ba mu sob ko mu sànni ab sox ci biir naaxub naat yu ca ëpp ne la siim yaa ca des di pët pëti bëgg a jóg nee na yukk yukk jëm ca foofu kenn mënu faa wuutu kenn loolu moo dal sëriñ bi ci jataayu bu ren bii mu ngi ñaan nag e, bu ñu koy defati yàlla man loo ko mu ñëw fekke ko na mu ko daan fekke jottali leen ngërëmi boppam ak canti boppam ci làmmiñu boppam wu sell wa moom nag xam na bu baax a baax nee na li dox digganteem ak sëriñ xam sa nee na fu mu dem te ci misaal bu demoon fi barab xamu fa kenn xamut fenn fu mu fay laaj fuñ ko ne fële sëriñ xam sa nekk du laaj lu fa nekk day dugg rek fekk ko fa xam na ne jàmm rek ka fay nekk te nee na yan bi ko yàlla yan jaarale ko ci yoxoy murit yi ñu di ko xoole Sëriñ tubaa nga xam ne ku ameloon borom Tuubaa bor sañ na laa taxawal ne la fayal ku borom tubaa ameel borit sañ nga ko xëy suba teel wala nga gont ko ne ko fay ma nee na loolu yëg na ko bu baax a baax a baax te nangu na ko it moo tax fépp fu ñuy wootee te mu jëm ci lu baax lu mën a doon nee na xam na ni wàllu borom Tuubaa ma nga ca moo ca war a jëkk moo ca war a mujj rawatina nag loo xam ne sëriñ Hamza di kenn ci moom koo xam ne ñi xam-xam nañ ni deme tey ñi nga xam ne xamaguñ it yomb nañ koo wax nee na jàpp na ne taxawaay bu fi waay mën a taxawe bu mën di doon ak ci lu mën a jëm moom nga ca wuutu rek sa kem kàttan waaye su ko mënoon te nii ko jamono tënk tënkiwu ko na mooy ñëwal boppam te lu ci waay def moom nga ko ameel moom nga ko defal ameel na la ca ak cant ameel na la ca ngërëm mi ngi ñaan yàlla ci barke borom Tuubaa liggéey bi yàgg lool te sëriñ Hamza tu yàgg koo jiite te saa su nekkit ñu di ci tase ak ndam yuñ ci tase lu ca ja ko jiitu mu ngi ñaanal ñëpp ak wér di ñaanal ñépp wërsëg wu lew woo xam ne saa bu borom Tuubaa soxlaa ñu mën caa kenn ku nekk mën caa yëngu ba yëg ca boppam nee nag gannaaw barab bi euh, barabu jaamu yàlla la jaare ko ci mbind sëriñ bi nga xam ne jihaat ji gën a mag ci jihaatam fësal na ko ci nee na yéen ñëpp ngeen bokk ko ñaanal yàlla dimbale ko ba mu bañ a am am ndog ba bañ a amum ndab ba naal yi mu naaw naalal ko Cheikhul Xadim te jullit yépp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 waaye benn yónni bu mu ko mos a yónni bu ko gën a neex ci yónent bi nee na amagut ci yónnent yee ko jiitu ndax euh, la genn góor defoon rek moo ko ci dal koo xam ne daa dox ci àll bi ba yàgg reer jot te fàgguwu ko te yitte woon ko waaye yàlla dimbali na ko nag ba Euh, rabu àll bu mu gis moom mën na ca am pexe fa mu taale di wéttilikoo taal ba fetal gi mu yoroon ba muy wëlbatiku sox ba tàkk ay njaay àll wadda dugg ci taal bi mu daal di wut ay bant sekkeretoom di sekkeretu di ree ñu ne ko lu xew mu ne damaa xam ne ñii dañu ma noppal ndax su ma leen jàppoo it foofu laa leen jëmee ñu far dugg ca lii rek moo ma dese nee na yónni bi ko sëriñ bi yónni ci sëñ xamsa namm ca yaabu ca la sëñ bi far ko ca mu daal di àgg ca biir asalaamaaleykum wa rahmatullah